ausbillahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim sant yàlla julli ci sangu sang yi seydina Muhammad sant suñ ñaari waajur sant suñ wàcc la cheikhul di leen nuyu baax di leen ziyaare di leen balaaq yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di seetaan Waarwi TV nekk alal Cheikh Amadou Bamba tey ji nag ñu am ci jotaay yi daan am jotaay bu ndax ñu ngi fii ci biir daara Kamil nekk kër gi nga xam ne këru ah, alxuraan ñu mm-hmm. kilifa kilifa goo xam ne macha allah ci mbaaxam ci yéwénam ci li nga xam ne moom la ko yàlla may nekk kenn koo xam ne mm-hmm. daal doon kenn ci Serigne Touba ndax bu ne Serigne Massamba mm-hmm. ku nekk day daal di xam Serigne Touba bokk Serigne Massamba ndax ni ko sëñ ma Serigne Touba yare ak li Serigne Touba def ci moom ci mbóot ci mbaaxu sëñ ma Massamba ak lépp loo xam ne sëñ sàmba ah. matoon na ko lool te di ah, ko motal te lépp la mat tey nag ñu ñëw fii nag am kontante bu baax nag ci biir kër gi ñu koy defee ndax buñ dee waxtaane sëñ sàmba dugg ci kër gu alxuraan yi di waxtaane sëñ Massamba jaadu na ndax sëñ Massamba alxuraan kese la woon allah comme ni ko nit ñuy waxee ndax sëriñ Tuubaa njabootam gi macha allah ku ci nekk rek am na loo xam ne ne mi ngi ci yow sëñ Massamba moom lam ca doon dafa di toog nag ci jotaay bi samay kilifa samay sëriñ doon samay xarit sëñ Xaasim Mbàkke moom sëñ Moustapha moom sëñ Modou Faty Khary ak sëñ Mourtala Mbàkke moom sëñ Fàllu moom sëñ ma moom sëñ Mahmadan ñoom ñaar lañ bokkal jotaay bi te buñ ko bokkee ñoom war naa mën a ne ndax saa su rek li ma naan li ci maam man ko sët ba seen xam-xam bu sell seen bi yéwén seen wàcc seen bopp ba ñu ñi nga xam ne ay dongo lañ ñu ñeme leen kon nag tey jii ñu dikk fii ci biir Daaray Kaamil seen waxtaane sëñ Massamba ñu jox kàddu gi nag suñu kilifa yi ñu waxtaan kat mooy sëñ Massamba ay jaar-jaaram li mu liggéey ci société bi ndax sëñ Massamba société bi da liggéey lu am solo loo xam ne macha allah kenn mënu am solo kon nag ñu jox suñu jëwrin yi ñu waxtaan ñu kan mooy sëñ Massamba aoudu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim inna alhamdulilahi na'buduhu wa nasta'inu bih man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al lisaani raasidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk bi ñu leen di ziar bu biir di ziar ñi nga xamante ne ñoom la ñuy janool eh, di ñu topp ci kër gu tedd gi nga xamante ni mooy maktabatu cheikhul xadim di ñëwaat ak yéen di ànd ak yéen ci ni soxna jaare junji léegi eh, ci jàngale lu aju ci dundu kenn ci awliyaullahi di rafetlu bu baax itam ànd gi nga ko ànd ak euh, waa télé bii itam ànd gi ngeen ñun ci jotaay weesu ba ci suñ jotaay bi di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa may ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ci loolu ñu ngi sant yàlla suñu borom subhanahu bu baax di ziyaare xalifa dëkk bi cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla suñu borom subhanahu fay ko li nga xamante ni moom la defal waa Sénégal ci ay jifam yu rafet yu yiw yoo ne ñëpp sant nañ ko di ko ñaanal yàlla may ko mu motel ay yéeneem di rafetlu itam bu wér-wér ay taxawaayam ginnaaw bu loola jàllee itam ñu doon leen yëgal ne tey dañoo ñëwaat ngir niñ ko waxee léegi rek fàttaliku dund kenn ci awliyaa ullahi mm-hmm. muy a cheikh Massamba Mbacke nekk kenn koo xamante ni borom xam-xamul la bopp géeju na ci mboolem fànn xam yi kon ni ko ñëpp xamee waaye nekkoon ab royukaay ci ay jikko ak yoonu ngëm yàlla sunu borom subhanahu wa ak yoonu topp sunna seen bi sallallahu taala alayhi wa sallam looloo waral ñuy fàttaliku ak dundam ndax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax yonent bi wa sallam ne ko fa zakkir fa inna dikra tanfa'u mu'minin kon daneen dafay njort bu wér wér ni fàttali gi ñuy fàttali ñenn ci awliya ullahi yooyu nga xam ne yàlla wax na ci seen xaq ni ala inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yahzanun dana leen jëriñ gëm nañ ni bu wér dana jëriñ képp kuy aji gëm ndax yàlla dafa wax ni tanfa'ul mu'minin dana jëriñ way gëm ñi kon képp kuy way gëm képp kuy woote woon ni am nga ak dara ci ngëm boo ko dégloo te jariñu woo ci sa ngëm moo manqué yal nañu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu yeggale leen ko barka Cheikh Khadim tey nag waxtaan wi dana la jëm ci ay tomb yu wuute eh, yoo xamante ne dañ ciy résumé dara ci ak dundam moom moom Cheikh ndax da koo xamante ak dundam dafa lamboo lu bëree bëree bëree bëri te itam nekkul lu ñu mën a nettali nekkul biographie am loo xamante ne mën nañ kaa wax ci ay waxtu yu néew kon buñ fi bëggoon a wax ak dundam dañ fi fanaan looloo waral jël ci ñeenti tomb rek ngir seq kook euh, suñu naataango yi ñu seqal soxna jaara ak sëriñ Mursala Mbàkke di doomi sëriñ Fàllu mu mu Cheikh Mahmadan Mbàkke mu Sëriñ Masamba tomb yi nga xamante ne nag moom laa nar a seq ak ba ca jiitu mooy wilaadatuhu wa xayaatuhul almiya mooy ak gënim àdduna ak li nga xamante ne mooy njàngum xam-xamam ba ca toppaat mooy xidmatuhu wa tarbiyatuhu suufiya mooy liggéeyal gi mu daan liggéeyal Cheikhul Xadim ak tarbiya gi nga xamante ni sëriñ bi defal na ko ko ba ka ñetteel mooy axlaaquhul faadila wa xususiyaatuhul fardiya mooy ay jikkoom yi nga xamante ni yu tedd la ak jagle yàlla sunu borom subhaanahu wa taala jagleeloon ba ka ñeenteel mooy diplomasiyatuhu wa alaaqaatuhul ijtimaaiya mooy relation bi mu amoon ak euh, société bi ak ñi nga xamante ne yooyu kilifay diine yi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 ila yawmi nashri suhufi al a'mal eh, saddid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraa'i zax zax ta dayra xutta mayra fal fi jawra mayraa'i eh, gannaaw loolu ñoo ngi ni mbooleem mbokki jullit ak mbokki taalibe ak képp koo xam ne moo ngi topp ci eh, lëkkaale yu bees yi muy jumtukaay yi nga xamee ne euh, foo nekk lu mu sori sori it day mel ne lépp dalaa jege képp ku ñu topp ci loolu yi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy nuyu bu baax baax euh, di nuyu kilifa dëkk bi euh, kili yees na sax kilifa dëkk gi waaye kilifa gi lépp loo xam ne yoonu murid la ndax yoonu murid la Cheikh Abdoulaye waxoon rek fu waay nekk rek foofu ci Touba la bokk. Euh, muy mun taxa Mbacké ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di di ko ñaanal suñ borom daal di koy tëbbu kattan gën koo yokk tawfeex gën koo yokk wér yaram ba naal yi nga xamee ne moo ngi koy naalal sëriñ bi ci domaine yu wuute wuute lépp daal di àgg ci jàmm salaam bam tijj ko ba tàmbalee naal yeneen naal yu bees ndax wax dëgg yàlla sag la ci yoonu murit yëpp ak sagla bu baax a baax sag yi ñun danañ ci danañ jàppale lool ndax bëgg gi nga xam ne da ko bëgg suñu Masamba te bëgg suñu Masamba lool moom moom moom Cheikh Mountakha ah, laata muy toog xalifa daana def saa ñu màggale Tuubaa bu noppi rek moo def benn jataay bu yaatu boo xam ne ñëbar suñu Masamba la koy defal tuddee woon ko njukkal njukkal sëriñ Masamba delloo njukkal sëriñ Masamba la ko tuddee woon mu nekkoon jataay bu am solo boo xam ne moom moom yëg na yëg na sàmba xam naa na yëg nag mooy ci taalibe bi nga xam ne ñoo ko bokk ndax suñu Massamba taalibe la ko amee woon euh, nuyu suñu xalifa di yaakaar muy Cheikh Moustapha moom Cheikh Massamba Mbacke mi nga xamee ne moo moo toog toogaayu sëriñ sàmba te mate ko sëkk lool euh, am gis-gis bu sori lool ba noppi nag am himma aaliya loolu nag firnde yu bëri na lool mën nañ ca joxe misaal lu mel ne euh, daru kayim gi nga xamee ne euh, jumaa ja fond ba ci njëkk moo ko joxe la nga xamee ne moom lañ moom lañ moom lañ tàmbalee liggéey ba moo moo ko joxe ba fi mu ne nii nag day continuer jamono ji kiir mu génne lu am solo loo xam ne boo ko tudd da jàpp ne lii moom <laughs> wax dëgg yàlla lu ñuy lu ñuy jeneer la wala lu ñuy wax rek waaye mënut a nekk mënut mënut nekk xiyaas wax dëgg yàlla loolu lépp moo ngi koy def gannaaw bi ñoo ngi nuyu mbooleem ñi nga xamee ne ñoo bokk ma sàmba ak moo xam mbokk yàlla ak baay ya ak baay tax ya ñoo ngi nuyu it mbokki taalibe yi nga xamee ne ñoo bokk sëriñ Masamba nga xam ne ñoom ñëpp sëriñ ma dong la ñu safoo naa ne naa ne it nuyoo mën nañ koo gën a gën a wàcce gën koo jegeel indi ko ci plateau bi ci jotaay bi nuyu soxna Jaara mi nga xamee ne eh, mooy borom moo ñu daral fii ci eh, waar wi TV jotaay bi ci waar wi TV ci waar wi TV ci waar wi daa mel ne tuuri sax moom dafa feeñ dafa feeñal dafa feeñ jëmmam mm-hmm. eh, ñu ko ci ñaanal suñu borom defal leen ci tawfiq bu baax a baax léegi ci xaa bi ñu nekk mooy mooy ci makaan bi ñu nekk ki nga xam ne moo ko jiite muy suñ jóob male it ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax xam naa ne waxtaan wi euh, waxtaan suñu masaam moom ci minute dafa néew lool sax suñu masaam sax démb rek am na ko ma koy wax ci njawal gi ne ko buñ ko waxtaan nañ ko doon waxtaanee dëgg-dëgg kenn du la mën a dégg ndax da ci am day wér waaye nag boo ko waxee ku nekk day dar noppam day day day day day day dis day dis day dis ci ci ci ci ci ci ab dégg waaw moo tax xam naa dañuy jël yi nga xamee ne doomu aada yi mën nañ ko mën nañ koo xam mën leen a jëriñ ci seeni dund ndax nit ku baax moom bu ñu koy waxtaanee dañ koy waxtaan rek ngir ngir nga roy ko waaw dañ dañ koy waxtaan rek ngir nga roy ko ndax gaa yu baax yi fekkoon duñ leen waxtaan ni ko suñu Musaa ko waxee kon kenn du leen roy yonent yi boo gisee ñu jàng siiraam saxaaba yi alxulafaa rachidun al awliyaullahi taala euh, awliyaullahi taala boo gisee ñu jàng seeni dund dañ ko dañ koo jàng ngir ñu mën cee ñu mën cee roy waaw loolu lépp donc moo moo mooy cause yi nga xamee ne moo tax ñuy jàng ñuy jàng dund gaa yu baax comme ni ko suñu xaasim waxee rek euh, wa inda dicri saalihin tatanazzalu arrahmat mm-hmm. fu ñu tuddee gaa yu baax yi ci la yërmande yàlla yi di wàcc yërmande yàlla yi bu ñu tudd gaa yu baax lay wàcc da nga gis Sëriñ Tuubaa sax li way yonente bi lépp day tudd melokaano yu baax rek hmm. melokaano yu baax yooyu nag moo ko yóbbi mu àgg ci daraja <laughs> kon ñu liggéey bi ñoo ngi koy def nag di ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawfeex lépp luñ ci wax rek bu jibee ñu xam ne moom la ah, te ñoo ngi sante ñoo ngi koy ñaan mu defal ñu ko tiyaaba lu ci dëng ñu xam ne suñu gàttuk àlliwa la eh, te ñàkk a matuk doomu aadama wa ma sumiya al insanu illa li nafsihi wa mal xalbu illa andahu yataxallabu kon doom adama dafa nekk ko xaw a manqué moo tax kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu joxe kàddu gi ba ñu tàmbale rek wax ci li nga xamante ne mooy génekk àddunaam kon ni ko soxna jaara laajee a Cheikh Massamba Mbacké mi ngi génn àdduna bisub alxamis ci weer wi nga xamante ni moo di Chaabaan muy weer wi nga xam ne ci lañ nekk ñaar fukk fan ak juróom-ñaar mm-hmm. loolu muy nekk atum mille huit cent quatre-vingt-trois ci miladiya nekk vingt et un vingt et un jours sixième mois waaye mi ngi nekk atum mille trois cent ci dëkk bi ñuy wax Patar nga xam ne mi ngi nekk ci boori Njaañ benn village la ci village yi sës ci Kokki boobu itam mi ngi fekk waajuram mi nga xamante ne mooy Serigne Mor Anta Sali fare woon foofu nga xamante ne mooy Pataar ndax mooy jamono yi Lat nekkee woon kër Amadu Yàlla yàlla dogal mi ngi gën àdduna ginnaaw bi waajuram noppaloo ba am lu mat juróom-ñaari weer ndax bu ñu fàtt ne Serigne moor Anta Sali mi ngi noppalu mille huit cent quatre-vingt-trois te sëñ sëñ Masamba ni ma ko waxee rek mi ngi mi ngi génn àdduna 1882 ci loolu euh, ni ma ko waxee léegi ki nga xamante ne mooy sëñ Mor Anta Sali mi noppalu ba tey ci mille mille trois cent boobu nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn at ci milaad yi waaye sëñ Masamba mi ngi génn àdduna mille 1883 te sëñ Mor Anta Sali mi ngi mii noppalu. 1882 jamono wee fekk na Cheikhul Khadim mi nekk ci dëkk boobu ñuy wax Mbàkke Kajoor keroog moom moo ànd ak rakkam ju tedd ja Serigne Ibra Faati ànd magam euh, mbokkum taalibim boobu nga xamante ne mooy taalibim bu dëggal boobu di Serigne Ndam Abdourahmane Lo ñu jëm fële nga xamante ne moo di Pataar sëriñ bi jox ko tur woo xamante ne moom moo ko tànnal mm-hmm. nekk tur woo xamante ni itam euh, waaye juróom mbébatoon na ko ci loolu mu tuddee ko boroom xam-xam bu mag boo xamante ni ci genn wàllu ministre naa wax ni sëriñ la ci sëriñ Mor Anta Sali ndax buñ fàtte ne Masamba Anta Ceebu mi nga xamante ne moom la tuddee sëriñ Masamba jàngal na sëriñ Mor Anta Sali lenn ci fànni xam-xam yi naka noonu tamit moo ko jox weddu bi nga xamante ne mooy tariqatul qadiriya <clears throat> ci loolu itam buñ fàtte ne gan goog nga xam ne mooy Serigne Massamba kañ ko tuddee maam la ci moom ndax boo demee ci téereb Serigne Abdourahman doo boobu nga xamante ni mi ngi ciy wax lenn ci jaar-jaari Serigne Massamba nee na <clears throat> a Cheikh Massamba Mbacke waajurum wi tudd waajurum bu jigéen mi ngi tudd soxna Aïchatu Diop soxna Aïssata Diop moom itam doom la ci ki ñuy wax sëriñ moor Khoudia Kumba jóob sëriñ Mor moomu mooy ki xam ne moo taalif téere boobu nga xam ne dafa jëm ci grammaire ñu koy wax al muqaddimatul kokki xam ni téere la bu siiw ci bari bi ñuy jàngee xam-xam moom moom itam kenn la ci doomu sëriñ Masamba Anta Ceeb moomu xam ne ci gàttal ci loolu ngay déggee ni kon sëriñ Masamba maamam lañ ko tuddee waaye itam sëriñu waaye juróom lañ ko tuddee Masamba Anta Kebe moom itam euh, ku ñuy wax Madu Pend bu yo mooy way juram sëriñ Madu Pend bu yo moom itam boroom xam-xam bu mag boobu ñu koy wax Ahmad Muxtaar Numbe Diop mooy way juram nga xam ni daare yi nekk Sénégal yu ci bëree bëri cosaan yi moom moo ko sanc naka noonu itam bokk na ci boroom xam-xam yi nga xamante ni ñoo fi tasaare tariqatul qadiriya ni mu amee ci Cheikh Omar Fouti Tall keroog itam bi nga xamante ne sëriñ bi tudd na ko ba noppi tuddee ko boroom xam-xam bu tedd boobu wax na fa wax ju yéeme joo xamante ni wane na moom moo ko taxawul boppam ndax dafa wax waajuram ba tamit soxna Aïssatou Diop ne ko na nga yëg ni gan gii de dinaa ko jàppe ni sama doom ci lépp lu ci moom ma def ko ak itam lépp loo xamante ni aajowoo na ko ma def ko ci moom ci loolu sëriñ bi buñ fàtte itam ni dafa magee sëriñ Masamba lu bari ndax liy feddali loolu mooy soxna Faati Ja mi nga xamante ni kenn la ci njabootu sëriñ bi moo féete mag sëriñ sàmba dañ daañu nettali itam ci taarix lu yéeme loo xamante ni dañ koy wax tamit euh, xew-xew boo xamante ni keroog ba sëriñ bi di bawoo Mbàkke Kajoor di dem Pataar la xew te tiim gu mu tiimoon loolu sëñ Moussa Ka mi ngi koy yaxal li ko waral mooy sëriñ bi ci yoon wi waxtu tàkkusaan bi mu ko demee amutoon ndox moo xamante ni moom la euh, jàppoo mu daal di tiim loolu nag wenn yoon woo nga xamante ni képp moom la doon ci dundam li muy feddiliwaat mooy sàmmante gu mu sàmmante woon ak ndigal yàlla yi ak tawféex lu ko yàlla sunu Boroom subhaanahu wa defal dëgg-dëgg histoire boobu nag sëriñ Massamba na ko sëriñ sëriñ Moussa Ka yaxal na ko ci ay téeréem ndax mi ngi wax naan weeru baraxlu ñaar fukk ak juróom-ñaar di alxamis la judd moo doyug waar bàmbaa ko tudd bàmbaa ko tudde cheikh masamba anta moo jàngaloon baayam ba mamor anta cheikh bamba wax na ni keroog may baayam fii baatin ngir yett yëf ci yaayam keroog ndeyam hmm, keroog ndeyam boole na ñaari buumam jébbal sëriñ Touba mu def boromam mu dellu jébbalaat ko Cheikh Massamba ngir féddale ko njébbalu baayam ba keroog ndeyam wax na fa wax joo xam ni sañoo fa koo biral bi du na may ni ku weddi lii nga dem ko laaj sëriñ Dame moo ma ko wax moo sant woon keroog daam keroog la bamba Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Dame Abdourahmane keroog la bamba masatim ci duniyaa ba ni mu wuy ji yàlla raw na mbër yaa loolu mooy dëggal dëgg-dëgg histoire boobu noonu ci loolu bi nga xamante ni itam yaru na ci loxoy sëñ bi ba yàlla def mu mat dal jàng sëriñ bi moo jiital ci moom alquranul karim jàngal ko xuruful hijaaiya yi mhm. dalal ko alquran mu def ab diir sëriñ bi boole kook sëriñ daam abdourahman lo fekk na boobu sanc na fa li nga xamante ne mooy daarul alimul xabir ci ndaam <laughs> euh, sëriñ daam génération bi nga xamante ne moom la fa njëkk a yor hmm. mais naa wax ni sëriñ Masamba ci la bokk ak sëriñ Mor Roqeya Bousso hmm. ak sëriñ Baye sëriñ Sarr ak ki nga xamante ne mooy sëriñ Omar Mbacke Gëlangal hmm. waaye nag ci diir bu gàtt sëriñ Masamba moo ko diir bu gàtt gàtt mokkal gu yéeme yéeme boole kook itam mën a bind mbind mu rafet ci diir bu gàtt ñaareelu génération bi nga xamante ne ñoo fa doon ñëw ginnaaw bi mbooloo mu njëkk mi mokkalee alxuraan ci anam gum gën a rafet génération boobu ca la sëriñ Mouhamadul Moustapha bokk ak Cheikh Mouhamadul Fadal loolu bu ñu demee ci sëriñ Moussa fekk neen num koy xal naan Bàmbaa ko tudd moo ko yar bam xàmmee mu jox ko Cheikh Abdou Fadam bam jimmi mu ne cheikh abdourahman moo ko sol qur'aanu ci xaj yu néew a néew raw soodaanu daarul alim moo di kër sëriñ daam la bind ay kaamil ñuyut ko maam daam foofee la jàng xam-xamub riwaaya ba bamba ñëw géej far ko sol diraaya keroog ba bambay ñëw fa daarul naan fekk na kaamilam ba xaq si rahman keroog la cheikh masamba waar magam jaa moor isa joob mu dal di gëm magam jaa euh, kon loolu mooy taarixam ci wàllum njàngum alquranam diir bu gàtt rek diir bu gàtt yàlla suñu borom subhanahu wa ko tawfiix ci alquran ji mu noppi ci loolu sëriñ bi jox ko ndigal ci mu dem ci magam ju baax jooju nga xamante ne mooy euh, maam Thierno jàngee ci moom lenn ci fànni xam-xam yi mel ni tawxiid fiqh luxatul arabiya tasawuf naxwu sarf as ndiir sëriñ bi daal di koy woolu boole kook borom xam-xam bu mag boobu di Serigne Mbacke Bousso Serigne bu Bousso itam def ci moom xam-xam baruut ak bayaan ak mantiq ak usul kon loolu moom lenn la ci ak parcours ci wàllu njàngam waaye def na itam ay intaajaat yoo xamante ne gën naa feddali nekk kooko boroom xam-xam bu mag la ndax bind na ay téere yoo xamante ni képp ku gis yër ko da nga xam ne kii di wax boroom xam-xam bu mag a mag a mag la ndax bu ñu xoolee ci ay mu muallifaatam dinañ gis ni am na yu ci génn am na yu ci génnagul waaye leen li ci génn rek loo ci yër xam ne kii ko kawe woon la ci madde yi nga xamante ne moom la doon utiliser bokk na ci téere yooyu mu bind bu ñuy wax mawaahibul xadim nga xam ne sëriñ bu mag bi la ciy tàgg daanaka buñ xoolee am na lu mat cent huit bayit bokk na ci téere yooyu itam téere bi ñuy wax madattu mi ngi tolloog trente sept bayit naka am na bu ñuy wax daxaltu fi xadratil mawla bila xajalin mu mat fukki bayit am na ci itam bu ñuy wax yashkurukal qalbu mu war a tolloog quinze bayit euh, naka noonu itam ci liy féddali kawe gi xam-xamam kawe woon moo ginnaaw bu way yooyu jàllee muy téere yooyu nga xamante ni taalif na ko am na yeneeni way wayaan yoo xamante ni moo ko wayoon ci jokkalante gu mu doon jokkalanteeg boroomi xam-xam ci ay mbind ak ay dénkaan ak ay naar yoo xamante ne day waxanteeg ñoom ndax buñ delloo ci Serigne Moussa Ka ñuy nettali di wax naan euh, joxoon na ko benn kaasu kafe goo xamante ni ba mu ko ko joxee ci la saafara mu dénk ko ab dénk mm-hmm. muy dénkaan lu yéeme yéeme. Euh, te loolu dafa am tawat bu mu tawatoon bu yéeme boo xamante ni demoon na ba ragal ci ak faatu mm-hmm. moo tax mu naan ca way wa mosoon na ma defal fadaaru rahmaan xar baaxu boo xam ni doyoon na kéemaan booba dama woppoon ba xaw ca faatu mu def sam docteur bu téemaa faatu ci barka kaasu warga lal ma saafara billahi bàccey mbër te mat la kaafara yi lay bayit la ma Massamba dénkoon Moussa ka jooy la leen ko moo ko soppoon bayit yooyee nag nga xam ne moom la ko sëriñ Masamba dénkoon moo nekk nii alayka ya Musa bi taqwallahi wa adamil gaflati an ilahi bi qadri gaflatin an il ilahi bi qadri gaflatin an illahi almuin taatika gafla taatika zulmatun min alxibbi llain fa xaysuma aqbalta lillahi salaam dahaba mudbiran wa qaala wassalaam mu ne ko yow sëriñ Musa Ka maa ngi lay ñaan di la dénk nga ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala kem li nga xamante ni moom ngay sàggan yàlla rek seetaan ci la lay mën mm-hmm. naka itam saa boo xamante ni jublu nga yàlla seetaan dootu la mënal dara mm-hmm. loolu ci ay wayam la bokk muy mustawa mu niveau bi mu amoon ci xam-xam nga xam loolu irtijaal la ko def li ñuy wax irtijaal neewut sax nit ki day def daal nga nga nga nga nga nga nga nga moom fi saa si daal di koy wax ak moom ay bayit loolu li koy gën a féddali dinañ ñëw léegi ci loo xamante ne xewoon na digg mag naar bu ñuy wax maylut maylut ñëw këram bay bëgga dem di ko tàggu sëriñ Masamba di ko téye ngir bëgg mu yeggale ngan gi ba ca kanam euh, loolu di gën a féddaliwaat makaarim axlaax yi newoon ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfa noonu la bëggee woon gan looloo waral maylut nag bi ngan gi demee ba bëri nag mu soxla woo ñibbi mu di ko tàggu sëriñ bi di ko gën a téye loolo ak bëgg gan mënu kaa paase maylu nan maylu nan ko masamba yaa najlu xabibullaahi arju dahaba fii gadin wallaahi mhm. yow sëriñ masamba yow sotub soppeb yàlla bi maa ngi lay ñaan daal nga may ma ma ñibbi suba sëriñ masamba nan ko mayluudu ibnu xamidin wallaahi fal tashkuril karima bit xanlaahi jazaaka rabbuka anil malaahi anil manahi xayral jazaa'i qultu an malahi mu ne ko mayluut yow doomi xaamit maa ngi lay ñaan rek ci njëkk teranga nga sant yàlla tafanaan yal na la yàlla fay nag boo xamante ne def nga lii ma lay ñaan mayluut di gën a takraar di gën a baamu lum ko doon ñaan di ko wax naan ko waaye nag ci weneen bahru bu bokk tak bahru bi mu doon waye ak moom nga gisaat ni si masamba itam ci kem bahru bi muy waxee ak moom rek ci moom la eh, bahru boobu la ko tontee di wanaat ndax li tax may indi abyaat yi mooy niveau bi mu amoon ndax dafa jàng ba noppi waaw li ngay intaaj war nañ kaa gis euh, muy bayit yoo xamante ne daf kaa delloo maylut moom maylut sëriñ Masamba naan ko euh, maylut naan sëriñ Masamba Masamba yaa najlu xabib xabibullah Masamba najlu xabibullahi yaa sanadi antal mu amilu hindi kullama xiini bi kastajartu min al aswaai qaatibatan min charri nafsi wa charri wa min charri sayatini ma ne ko yow Masamba yow sama bi yow soppeb yow doomi soppeb yàlla bi yow mi nga xamante ni waxtu wu ne ku rek lay mbibit man daal maa ngi lay ñaan nga bàyyi ma ma dellu waaye ci yow laay mosoo yàlla suñu boroom subhaanahu wa mboolem ay samay bakkan ci ku ne yow ak yow samay ay bakkan ak sama samay ay ay ay ak samay ay bakkan sëriñ Masamba delloo ko fi saa si ay bayit muy irtijaal naan ko anta alxabibu alladi min ajli xadratihi anta shawaxila shawqan fil ahayini nga xam ne lii wax waxin bii muy wax sax day day da nga gis ni euh, musaawaat gim doon dund ak nit ñi ñoom bañ am ak rëy rëylu toroxlu nga xam daf koy naan yow de yow maylut xanaa xamoon yow yaay sama soppe boo xamante ni saa bu ma nekkee moom ci ay jotaay damay fàtte samay soxla ci kilifa gu doon ni moom muy wax ak moom nii ci kàddu yu nooy yooyu kàddu yooyu nga xamante ni kàddu euh, ku dugganteeg nit ñi la loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a roy la itam ci moom euh, dañuy itam ba tey di wax ci li nga xamante ne mooy wàllum njàngam ndax bi nga xamante ni euh, jàng na ci loxo yi Sëriñ bu so ba noppi itam ginnaaw bi sëriñ bi demee fii nga xamante ne mooy Murtani naar yee daan ñëw foofu naar ya daan ñëw foofu eh, ak ñëwaat ci sëñ bi lu bëree bëree bëri am na ci ñenn ci ñoom ñoo xamante ne ma Masamba jël na ci ñoom xeeti xam-xam xeeti fànn yu wuute ba géejoo ci seeni loxo ci fànni xam-xam yi eh, foofee itam mën nañu wax ne mooy deuxième marxala bi nga xamante ne dundam gi foofu la tàmbalee ci beneen marxala muy marxalatu tarbiya ndax ak tarbiyaam foofu la tàmbalee ndax mën nañu wax ni taxsil bi mu doon def ci xam-xam mooy sàkku xam-xam foofu la euh, jeexee léegi tarbiya gi dooree ci fi nga xamante ne mooy Mauritanie ak Jolof seriñ bi di ko tarbiya tarbiya góor yàlla yi nga xamante ne dañoo am ay yitte yu kawe ci sóobu ak jaayante ak muñ ak fuglu seen borom subhanahu wa ak li nga xamante ne mooy régler seen i jëf euh, ak dëddu àdduna ak wàkkirlu ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala ak gërëm loo dogal yàlla sunu borom subhanahu wa ba ni àggee ci maqaamaatul yaqiin yi ci loolu diggante diggante boobu sëriñ bi am na ci jamono joo xamante ne daf kaa desloo ci boppam ci këram. di ko liggéeyloo ci wàllu alquran ak kaamil ak xasida yi ak itam di ko bind naka noonu itam di ko maas naka noonu itam sëñ bi di ko liggéeyloo itam ci di toog ci ay jotaayam di déglu ay waxtaanam ndax dafa nekkoon koo xamante ne dafa am ak ñaw mën a takk ay nettali mel ne bu ma la ko doon misaal kan lay nural ci saxaaba yi mel ne la kon ab Abu Hurayra la ndax li muy nettali xarfan bi xarfin du ci yokk dara mm-hmm. loolu waraloon sëriñ Euh, cheikh mahamadul fadal di ko tagg ci lool banaan ko man lil ahaditha hada cheikhu yajmauha xifzan saxihan wala tulxihi yaxtabitu tey jii fan lañuy jëleeti koo xamante ne danañ wattul dajaleel ñu nettali sëriñ bi te bu dal ko dee nettali dala koy nettali ci anam nga gën a wér goo xamante ne gu wér a wér lay doon du yokk du ci wàññi xam naa kon loolu mooy bunt bi nga xamante ne dafay aju sax ci wàllu tarbiya gi ak euh, liggéeyal gi mu daan liggéeyal sëriñ bi loolu dañuy bàyyi ku mel ne Cheikh Mouhamadou Moutala bu ñëwee gën cee yaatal incha allahu taala ñu wàccee foofu suñuy kàddu euh, jox Cheikh Mouhamadou Moutala